couple yi góor ak jigéen di sëy mhm. ci benn ak ñaari at ba jëm ñett mhm. te am doom mhm. ñëw exemple ci sëriñ bi ñun buñ ko xoolee exemple ba def diagnostic bi dañu mën xam ni ku góor ki la wala ku jigéen ki la bu fekkee jigéen bi ñoo ko yeewoo pour faj ko ñu jël suñu wàll bu fekkee itam ku góor ki dafa tëw am doom mën nañu ko defal bilan spermogramme suñ Bara Fall maa ngi lay ziar ah man de aw ma sa fay wax dëgg yàlla parce que bi ma ñëwee jóge Belgique sëy naa ñaari yoon awma ma doom presque dix ans de mariage aw ma doom bi ñu gisantee nii daal laa jëlam wax dëgg yàlla ci garab yi moom ma ju jox nii ma naan ko yi ma naan sangu di naan pour mooy wax mbokk yi affaire bi mën na ñii mën nañ gaaw la tey mun ñii mën nañ gis te daan deux wala un mois mais de toute façon de gis gis résultat aw ma nag sa fay maa ngi lay yokk di la ñaanal yàlla na yàlla fay yàlla na Serigne Touba fay ak sëñ Baara daa kontaan naa ci trop trop trop parce que li ma la waxoon yëpp defal nga ma ko wax dëgg yàlla tey nag ginnaaw dañ fi ñëw ci suñu liggéey ñëpp xam ñu ci médecine traditionnelle muy médecine africaine comme ni nga ko expliqué sànq. Mm-hmm. kon mm-hmm. a perdre mm-hmm. sëriñ warul mën lépp man mënuma lépp waaye dafay fekk ni xëy na feebar yi ñuy faj bu ñu ko mën a géey limite danga xaw bari danga jël temps waaye dañ ci tënk rek ci li ñuy spécialisé comme ni ko docteur junjee tey ci thème bi tey bi muy surtout problème infertilité des couples o uhum. couple yi nga xamante ni bëri na ay jafe-jafe yi ñu am ci wàllu am doom eh, du ñu wax sax ménopause wala du ñu wax sax eh, stérilité mais dañuy wax infertilité des couples uhum. ci ku góor ki ci ku jigéen ki ci doom xale bi ndey gi uhum. ak accouchement yi ak euh, perte accouchement yi muy avortement yooyu yi ci nekk yëpp yaakaar naa ne ci tënkee rek nañ ci mën a waxtaan ci suñu borom alhamdulilah rabbil alamin bu nga ko jëfandikoo njëriñ bu baax a baax waaw sama soxna ñëwoon na ci yow sax ah ñëwoon na ci yow pour affaire fibron bi te mu dëkk Thiès garab boo xam ni daaw ñaar yoon ba garab bi alhamdulilah yàlla def na boo yàlla def na ba ba yàlla def na ci am naa sax ndeer te am naa sàq ndeer léegi vraiment ci moom ku tëb xamul man xam naa ko yàlla may na ko ay xewul yu bëri te garab bépp mu la jox garab mu la jox rek boo ko jëfandikoo rek biir sa résultat lépp lu ñu nekk ci moom dañ koy gëstu ko bo meuna a xam ni kii ak lii moo ne ci mom pour bu ko defee boo ko garab mu baña am ben effet secondaire parce que garab dafa nek lu mesurable nek lu quantifiable ndax bépp garab dafa am ay principes actifs ay molécules des plantes yu nek ci biir loolu motax ñun nag gëstu ñu ba xam ni ñaari médecine yi warul mën dem sans benen mais très souvent dañuy faral di gis exemple bi may joxe mooy couple yi goor ak jigéen di sey ci benn at ñaari at ba jëm ñett teew am doom hum. ñëw exemple ci sëriñ bi ñun buñ ko xoolee exemple ba def diagnostic bi dañu mën xam ni ku góor ki la wala ku jigéen ki la bu fekkee jigéen bi ñoo ko yeewoo pour faj ko ñu jël suñu wàll bu fekkee ku góor ki itam docteur bee ko war a jël muy urologue bi moom it mu def ci waaram couple boobu en général bu ñu ko traité même pas ay weer yu gàtt suñu borom dana ci def barke parce que problème boo gis am na solution dafay làqu rek mais bu fekkee nit ki kooku moo ëpp chance wér que ki nga xamante ni exemple dafay dem ci benn pàcc bi kese. li bu koy jëkk demandé mooy est-ce que am na benn échographie boobu dana mën a détecter lépp luy infection bu nekk ci jigéen bi mhm. te dina mën a tax ndax ku jigéen ki amul kyste de l'ovaire mhm. ndax amul trompe yu bouché mhm. wala amul fibrome wala amul genre feebar yu ni men bu fekkee dafa am genre feebar yooyu ñu xam ni kii sage-femme bi ko yeyoo ñu jox ko ko bu fekkee itam fibrome bi moom opéré woon na ko te dafa dellu siwaat en général fibrome yu ci ñi ko am ndax fibrome de l'utérus lañ wax mm-hmm. dañ koy dindi mais en général bu ñu ko defee intervention chirurgicale bi quelque temps après wala quelques années après mm-hmm. day dellu si day dellu si waat léegi en ce moment là bu fekkee dépassé wul 55 cinq millimètres mm-hmm.

dañ lay yóbbu ci urologue bi mu xool bu fekkee dafa war a jox garab wala bu fekkee moom dafa am varicocèle pour mu defal ko intervention éthique dañ ciy jàpp ñu bàyyi ko urologue bi mu liggéey liggéeyam ñu ñu xool lan lañ ci rek ñu def ko ndax am nañu ay complémentaire d'aliments yi nga xamante ni pour góor gi nga xamante ni am doom ay garab da loolu yàlla def ci barke am na ci benn couple bu mu ci mujj am sax ndaw si mi ngi nekk France Marseille mais yàlla dafa defoon ci jamono jooju mu sëy jëkkëram yàgg euh, ñu xool ko foofu ñu ni ko sa benn ovaire nga manqué le mhm. par miracle nga mën a am doom mhm. tubaab yi ni ko essayé nga dellu sa dëkk nga xool est-ce que ñoom amuñu luñ ci mën mhm. mais yàlla ba mu ñu booleeg ñoom ñu ànd ci ak suñuy partenaires yi di docteurs yi yàlla may leen loolu ñu àndandoo lëkkaloo wax dëgg yàlla suñu borom may nañu fii ci Sénégal kon nag wax dëgg yàlla daal am nañ ci am nañ ci daal ay résultat yu am solo man dama fi amoon feebar boo xam ne daf ma sonaloon boo jàpp sama biir feebar docteur bu ne dem naa fa ñu def ay analyse ñu ne ma gis ñu dara waaye yàlla dimbali ma may suivre toujours télévision yi borom xam-xam yi yàlla xam na ne nag borom xam-xam yu bari dem naa ci ñoom dem ci tubaab yi ba sonn ñu bindal ma ay garab ba sonn def analyse bu nekk gis ñu dara dem nit ci borom xam-xam yu bari waaye bi ma yàlla booleeg la Lamine Baara mii ba ma dem fa wax dëgg yàlla mu commencé ma ay traitement vraiment ci diir bu gàtt rek laa tàggoog loolu ma wax dëgg yàlla yàlla ak sëriñ Baara mii moo tax ma tàggoog loolu wax dëgg yàlla du loo xam ne traitement jël temps la ci man dama daan dem ñi may joxe reen ak garab may naan ba sonn dara waaye wax dëgg yàlla ci kàttanu yàlla daal moom mii moo ma faj ba fajal ma yeneen sax wax dëgg yàlla loo xam ne waxuma ko woon ndax nit ku nekk boo amee jàngoro la la gën a sonal rek ngay gis mbokk Sénégal tey jii nag ñu nar a waxtaanee ci wàllu ndoxum siti ndoxum siti nag feebar bi nga xam ne ci deru doomu aadama bi lay gën a donte ndoxum siti nag dana feeñ ci biir mais dana feeñ ci biti mën nañu wax ne soixante quinze pour cent ci ni muy manifesté woo ci der lay manifesté woo exemple jigéen bu tëw am doom ndoxum siti mën na nekk ci butitu njurukaayam am na jigéen ñi xam te ne dañuy am ay kyste dañu am fi fibrome dañu am myome te loolu buñ ko seddoo ba ci biir it ndoxum siti dafay bokk ci li nga xamante ni dafay am yan xeetu feebar moom mooy am ci der ndax xam nga baalu ndoxum siti ay maladie ay maladie vénérienne ay syphilis endémique la wala yenn infection yi mën na ko indi ay lésions ak ay démangeaisons maanaam ay picc yi nga xamante ni day am ci yaramu doomu aadama ni muy manifesté woo comme ni ma ko waxee sànq dafa bari ñenn ñi ay picc la leen di jox ñenn ñi heure la leen di jox ñenn ñi seen yaram da koy ñaral ñi ci des seen yaram da koy xar tànk yi day xar seen wey yi day lakk di ñuul ñenn ñi day jàpp seen bët ñi ci des ndoxum siti dina jàpp ci seen baat ci seen put kon nag ndoxum siti dafa nekk lu yaatu ndox la bi nga xamante ni dafay kuulewu ci diggante der bi ak deret ji foofu lay dox mais fu ko nekk ci nit ki mën na fa génn. salaamaaleykum sëriñ bi na nga def ça va. mos naa mos naa commandé euh, benn dose euh, kii euh, ndoxum siti bi bon mu ngi tane bu baax a baax a baax looloo tax dama bëgg am beneen dose parce que ndoxum bi siti bi dafa dafa yàqoon sama yaram bi yëpp looloo tax dama bëgg jël. Uh, beneen dose ak uh, sabon savon bi savon bi laa doon bëgg a jëfandiku quoi bon dama bëgg encore yow ndoxum siti bi dama yaakaar dafa yàgg sama yaram loolu tax ma bëgg am beneen dose jërëjëf. Euh, ni am ñoo xamante ni euh, seen awra day à tout day tàng dañ koy wokk kon nag képp ki nga xamante ni yàlla boole nañoo ak yow rek ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem après consultation dinañu mën a xefe xam sa jafe-jafe boobu nga am nan la ñu mën def ba jàppale la ci loolu incha allah. li nga xamante ni moom mooy favoriser apparition wu ndoxum siti lolou mom lek déjà bokku na ci li li koy gën favoriser yenn alimentation yi ñun nak euh, Sénégal suñu alimentation dafa dafa gras bu mu ëpp te ndoxum siti bëggul bëggul lu niin soow daf koy favoriser bu baax dafa yokk ndoxum siti euh, gerte kemp day yokk ndoxum siti ci rek meew boo ko rek automatiquement dafay favoriser ndoxum siti bu baax lek yi ñuy faral di lek dafa bokku ci li nga xamanteni moy tax ñun Afrique wala Sénégal ñun dañu bokku ci ñu ëpp ndoxum siti ci àddina ñun sénégalais salaamaaleykum sëñ bis du li ngeen ne mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax maa ngi nuyu di leen jaar lu bëree bëri teen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen dama déggoon sa publicité si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine yi man daal daf ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de li ma doon dund ay at mauvaise haleine ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni sax balaa may egsi si man laa koy nuyu mënuma sama yitte yépp laa daggoon wallaahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd si ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallaahi ngeer sax lu ne luñ na baax na rek ma baaxal sax di ko def ay bain de bouche ak lu ne waaye mauvaise haleine yi fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu man ma indi bu ma naan butéel ba muy bëgg a jeex bu mel ne daa gën a yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog a xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante nit normal fi ñu toll nii gëmewuma ko sax nag wallaahi gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci te xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla na leen yàlla jàppale daal yàlla na yàlla fay gën a wéral cër yi kontaan naa nekk leen si jàmm ju bari jërëjëf. te itam xam nga nga nekk jigéen war a rafet yàlla dogal sa kanam am ay tache sa kanam am ay ër xam nga loo saabu boo sangoo mu allergie la diw boo diwoo mu yàq sa yaram te ndoxum siti moo ko waral te fekk ni am na consultation yoo doon def wala traitement yu doon jël ci benn un mois yàlla dimbalee la ndoxum siti boobu mën a dañ loolu am na solo. Euh, bu dee xale itim loolu itim dafa nekk li xam te dafay feeñ ci ñoom ndax ndoxum siti toppub sët la moom sa maam sax da koy am mu topp la topp sa ndey topp sa baay ba ci say sët da lay topp am nañu ay traitement yoo xamante ni da koy faj ci biir garab yooyu naan am nañu ay traitement yoo xamante ni da koy faj ci biti mooy pommade bi nga xamante ni moom ngay diwoo fépp fu ndoxum siti génn sa yaram traitement bi ça dure juste un mois traitement bi def nañ ci xewal kuñ ci yàlla rek incha allahu rabbi suñu yàlla booleeg yow daañu la mën a jàppale ci loolu traitement bi ci kàttanu yàlla mois yàlla mën na la dimbale incha allahu rabbi. maa ngi lay ziar. man maa ngi tudd Gora Tine dëkk Thiaroye Gare. ziar naa la maa ngi la joxoon garabu hémorroïde bi. waaw wax dëgg yàlla garab gi baax na lool lool lool lool lool. man de ginnaaw yàlla moom ci laa gis sama bop maa ngi ciy sant yàlla bu baaxit it. dëgg yàlla. ndax avant ma koy jël naa lool. waaye keroog bu ma ko jëlee. même pas juróomi fan. sentir naa ci sama bopp bu baax te gis naa si njëriñ it incha allah rabbi fu ma gisee tey kuy jàmbat hémorroïde bu soobee yàlla dinaa ko yebal sa maa ngi seen numéro maa ngi lépp jërëjëf. numéro bii ngeen ñu mën jotee muy 77 169 45 45. 77 169 45 45 wala ci benen bu mu joko bi di 77 160 93 93 77 160 93 93 woote len pour jot sunuy ndaw pour am rendez-vous wala pour jot ci garab yi incha ngeen jëf yalla yalla barkel te wéral ci ci carton yalla ak baaxama yërmandeem amiin Serigne Touba.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 asalaamaaleykum wa rahmatullah waa sëriñ Baara ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar yi tey yéen a ngi ci jàmm naka jaboot gi ñëpp a ngi si jàmm waa sa garab yi da moom am na solo trop trop trop vraiment bi ma koy commencé jël ak léegi daal wax dëgg yàlla maa ngi sentir ne lu am solo la wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yow trop sëñ Baara ñu ngi kontaan ci yow di la gën a bàyyee suñu bopp daal jërëjëf sëñ Baara. hépatite B nag nekk na feebar bi nga xam ni wax dëgg yàlla organisme bii di OMS wax na ni trente pour cent population mondiale am nañ ko fii ci Sénégal sax daf fee bari lool ba ay nit ñoo jël ñaar ñett ñu nekk rek ñoo ngi koy jàmbat hépatite B nag virus la virus la bi nga xam ni dafay dugg ci organisme doomu aadama di ko yàq kon hépatite B bu ko nit amee rek na jàpp ni moom mooy ndayu cancer ndax hépatite B bokk na ci luy jur cancer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 waaw maa ngi lay ñaanal nag yàlla na nga fi yàgg yàlla na la sëriñ bi guddal sa fan wéral say cër yokk say xéwal ba dootul yem fenn waaw sa xam-xam yàlla na dem ba siiw ci àdduna bépp ba ñëpp xam ni lii nga yor sëriñ Tuubaa la ko jox te jëriñ jaam yi képp tax mu jox la ko. am na ci nga xamante ni nag c'est héréditaire seen ay maam wala seen wayjur bu góor wala seen wayjur bu jigéen da leen koy wàll ndax maladie la bi nga xamante ni c'est trop héréditaire day dugg bu déggee dugg na ci famille bu mel noonu nga gis ni sa ndey da ko mu yóbbu ko sa baay amoon ko mu yóbbu ko sa frère am ko mu yóbbu kon kon kooku kooku kooku jarul ngay toog ñu naan la ay trois mois ñëwal six mois ñëwal nga yeew benn jour ñu la dugg na cancer dootoo ko mën a faj kenn dootu la mën a faj ku loo ko waxi dalay nax parce que dafa am taux bi nga xam te boo bu fa xasee ba egg cancer direct cirrhose du foie direct nit ku nekk na nga moytu bépp deret bu bokkul ci yow même bu dul mën na la wàll yeneen feebar ñu moytu lépp li nga xamante ni mooy mooy yàlla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

c'est la dilatation des veines autour du testicule Manam góor gu am nga ñaari testicule loolu nak muy bourse yoyu muy ñaari nen yoyu. bu fekkee dafa am dilatation manam am malformation muy fi spermatozoïde bi war a jaar dafay fatt boobaa dem ba intervention chirurgicale Li nak c'est juste pour prévenir pour képp ki nga xamante ni war nañu wala opérer sax varicocèle mën nañu wax ni dootu ko jar ñun ñu faj yàlla wéral ñu may la lo fajee sa bop. ay remèdes gratuits yoo xam te mën nga utiliser sa biir defee ko sa biir kër yàlla dafa la ci tawféex non seulement ay complémentaire d'aliments la day yokk ndox bi yokk spermatozoïde bi ndax ñu bëri dem nañu ba ñu leen di wax amuñu spermatozoïde zéro maanaam ñi am azospermie ñi am oligospermie ñi am nésospermie maanaam amuñu ndoxu sëyukaay manqué na day am problème mobilité day am problème bu vitalité bu ñu sëyeeg seen soxna day niin mbatt ndox bi day woyof day niin ba ñenn ñi sax doot ñu ko am mën nañ leen may ay complémentaire d'aliments yi xam te ne dafay récupérer waat ferñeent yooyu ba ngeen am ko bu baax asalaamaaleykum sëñ Lamine Bara maa ngi lay nuyu di la ziyaar yi di la jox si wàcc waay ah di la ñaanal yàlla rek nga yàgg ci nga ci àdduna lu yàgg yàgg di xettali jaam yi vraiment maa dee doon déglu sa benn waxtaan ci varicocèle wax dëgg yàlla bëri na ay sëriñ yoo xamante ni daal joxewuñ ci daal maanaam li nañ xam vraiment yaa ngi xettali jaam yi yàlla na nga yàgg ci suuf waa yàlla na nga dajak sëñ Touba aljana ci barke Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yàlla na yàlla dafa sutura àdduna ak lépp looy séntu ci sëñ Touba rek yàlla na nga ci jot ci barke Seyduna Muhammad ni ngay xettalee jaam yi yal na la yàlla xettalee noonu vraiment léeg-léeg nga joxe yoo xamante ni wax dëgg yàlla nit fay na ci ay milliards te gisul résultat vraiment yow ñu ngi lay gërëm di la sant maa ngi lay gërëm di la sant bu baax jërëjëf. li ngeen ci njëkk gis nag na ngeen xam ni sump moom ñu bëri xamuñu ko woon waaye am na solo trop bokk na ci lu koy faj ñaareelu mbir ba lii bokk na ci lu koy faj muy doomi laaj laaj. bi ben gousse d'ail la complet bi mo nek ni la ca des citron bokk na ca la kay faj citron mom ñaar lañ ci wara am ci kàttan yalla ak persil bo am baxna na persil yëpp nay persil rek persil bi, persil fleur persil chinois comme ni ngeen koy gisee ni luñ ci am baxna bu ko defé ñom ñëpp lañuy bolé xana ñu jublu ci comment ça se passe ñu dal di dag sunu laaj bi rapidement voilà voilà kon nag laaj baa ngi nii moom laay njëkk dugal ci baraada bi persi baa ngi nii xooli nañu sunu set doomu sump ba mu set raxas ko witin ba mu set mu dese ñu citron bi doomu citron yi moo nekk nii ñu boole lépp def ci un litre et demi ñu boole lépp baxal au bout de 15 minutes waaw mbokk yi salaamaaleykum waaw ma doon wax affaire ñaanu Bara Fall yëpp jarta yàkkamti nànk-nànk rek ci mbirum doom mbirum doom moom traitement la rek kii mën na naan tey jël ëmb kii mun na naan ba trois mois doo ko jël ëmb ça dépend ci biir nit ki nu mu tëjoo woon ça dépend ci biir na dem ba six mois sax ça dépend jigéen bu nekk at biiram nu mu tëjoo woon parce que man mën naa ne tëju naa ëpp na dix ans te mariage ñaari jëkkër yi ma amoon yëpp aw ma kenn doom bi ñu gisantee nii daal laa jël wax dëgg yàlla ci garab yi moom mujj jox ni ma nan ko yi ma nan sangu di nan pour mooy wax mbokk affaire bi mën na ñi mën nañ gaaw la tey mun ñi mën nañ gis te dan deux wala un mois mais de façon de gren gis résultat wa parce que amna ci jigen ñoo xamni nak des fois mën nañ nan garab gi sen tromble mo fat soit ñu defon avortement yu bari bari bari tromble yi bu fattee garab bi da ngay nan nank nank rek mu ngi raxas sa bir nank raxas da ngay xéer gis sa bir set day am ci ay jigen fekk dañu defon avortement raxasuñ sen bir bu ñu raxasul bu baax biir bi day dem ba sa trombli bu fattee doom bi du gaaw day yéex léegi bu sa trombli setee pour nga ëmb day gaaw ñu mosoon a am doom di ëmb muy deñ di ëmb muy dem dem muy deñ ñooñu mun na leen dalee noonu nga xam te ne bu ñu naanee day xew a yéex tuuti parce que seen tromble moo fatt fatt fatt ba il faut mu débouché wu dañuy naan garab gi nànk muy raxas seen biir ba xëy set ni ngay naan koy saweeg yëpp da koy dindi nànk nànk daal ak li ngay sangoo dëgg yàlla baara faal aw ma sa fay jërëjëf merci beaucoup voilà sunu formule bi voilà voilà léegi sunu formule mu ngi ni bii moom nit ki soo ko bëggee gis ci résultat mu gaaw

moom moo gën a baax pour suukar yi wexul ndax amul dara lu wex soo ko mënee naan noonu utile ba tey yàqu ci defaru ci suukar yàqu ko defar ko incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem kon képp ki nga xamante ni yaa ngi am sa soxna di sëy moom pendant un an te sa soxna tën a am doom formule bii ñu la wan recette bii ñu la wan def ko nga jëfandikoo ko. nit mosu ko utiliser ci deux à trois mois te gisu ci résultat. képp kuñ ko jox rek ci kàttanu yàlla dina faj azoospermie faj oligospermie faj nésospermie faj varicocèle completement bu amoon ay dilatation sirit dem ba lemu ba fatt ba spermatozoïde bi dootu mën a jàll ba nga sentir sax ñaari nen yi tollootul bii dafa rëy bi ci des ndaw lépp dina ko équilibré ba mu peral ko ba mu tolloo normal parce que varicocèle ñu bëri xamuñu ni boo ko amee benn bi dafay gën a ngande bi ci des loolu itim képp ki nga xamante ni yaa ngi sentir sa ñaari testicule yi tolloowul ñaari nen yi bii dafa ëpp beneen bi rek bàyyi ci xel te nga xam ne lii itam lu mën a am la te bu dee am nga varicocèle dina ko faj góor bu toog un an sa soxna amul doom jëfandikoo lii ci kàttan yàlla Serigne Mouhamad Lamine Bara Fall moo leen ko doon may Géejawaay arrêt Dubalès seen cabinet bi bio kon nag defal nañ leen ko addiyee Serigne tubaa ci doole maam Cheikh Ibrahima Fall am. def ko jëfandikoo. njëriñ bu baax waaw sama soxna ñëwoon na ci yow sax ah ñëwoon na ci yow pour affaire fibron bi te mu dëkk Thiès. garab boo xam ni daaw ñaari yoon ba garab alhamdulilah yàlla def na ba yàlla def na ba ba yàlla def na ci am naa sàq ndeer am naa sàq ndeer léegi. vraiment ci moom ku tëb xamul man xam naa ko yàlla may na ko ay xewul yu bëri te bi mu la jox garab mu la jox rek. serigne Lamine Bara Fall xam ko xamé ko ragné ko ci bag yi ngeen di faral di gis écran bi comme ni jaaro li ci gëna am solo moy daf lay ar pour chat dalay ar pour lamine dalay ar pour rap dalay ar pour jinné ak seytaane ak nit guddi ak lepp luy feebar lool rek tax nit war na ko am karangé ndax yoyu moyakal yakal nit loolu moy tax nit ñi ñoo yor dara ñaareel mbir bi day ubbi say buntu wërsëg ndax nit wërsëg ay buntu la nee nañu buntu wërsëg yi juróom-ñaar la am na ñu nag ñu naan fukk buntu wërsëg la am na ñu naan am na lu ko ëpp waaye ñu jàpp exemple nit ku nekk ci ñun bu sa juróom-ñaari buntu wërsëg ubbeekoo di nga dund ci kaw suuf ba jóge fi te dootoo soxlaal kenn dara dootoo bokk mukk ci nit ku naan jërëjëf dañ la naan jërëjëf xaalis day ñëw bu baax nga am avancement ci sa liggéey te xaalis boobu su ñëwee day toog ndax nit ñu bëri membrane dañ am jafe-jafe wërsëg bi day ñëw mais du toog bismillah alhaji bara deg na say mbir bu baakha baakha baax li ngay def leer na li ngay wax leer na ñun mom ñun talibé mouride yi moom yaakaaruñu mom ku dul Sëñ touba ak cheikh ibrahim mom mom la lay bayel mom mi nga xam mom mom lepp man nak ci sama jëmu bop ku sa mbir leer na te bi nga feñalé ku sa ngëm-ngëm ci yalla ak ci yonante bi te ki wax jital ku suñu borom ah, ah, ak yonenté bi kooku am defe naa ragal na suñu borom ragal boo xam ne nii lu muy def yëpp mu ngi ci xool ku suñu borom ak yonent bi ndaxte ku dee yaa ëkk sa bàmmeel la te xool nga sa diggante ëkk sa bàmmeel ak sa njaboot bi nga xam ne moom ngay bàyyi ginnaaw man it koy koy yàlla laa lay bàyyil ak sëñ Tuuba ak Cheikh Ibra ndaxte ñun moom la ñu yaakaar fii te moom la ñu yaakaar fële kon nag li ngay wax leer na ci ku ci barke borom rawatina nak ci walu bayre da ngay am bayre ya xam ci bép activité commerciale boy def wala ngay yëngutu ci walu développement wala ngay yëngutu ci politique wala ngay yëngutu ci lu mu munti doon te jaaru itim comme ni ngeen ko gisee dafa baax ci kuy tukki lii moom nit du ko demander visa ñu rejeté ko foo bëgg dem ci adina lolu dal moy mamran li nga xamanteni moy njariñam salaamaaleykum Bara Fall ma ngi ziar ah man de awma sa fay wax deug yalla parce que bima ñëwé jóge Belgique tukki woon naa def trois ans ñu delloo ma aw a yàlla def ñu boole ma yow ma ñëw seetsi la arrêt du balees ma ne la ah man de jaaro bi may dégg laa bëgg bi ma joxee jaaro bi ma dem ñaan visa dëkk bi bi ma ñaan visa nag dëkk bu mag la dëkk bu jafe sax laa ñaan muy Angleterre bi ma ñaanee ñu jox ma visa trois six mois maag sama doom ma ñëw fii Angleterre dugalaat kayit bi ma dugalaatee ñu jox ma 5 ans direct at passeport aw ma nag sa fay ma ngi lay yokk di la ñaanal yàlla na yàlla fay yàlla na da Serigne Touba fay ak sëñ Baara la kontaan naa ci yow torop torop torop parce que li ma la waxoon yëpp defal nga ma ko wax dëgg yàlla. nit nag bala mu naan day mën a dimbale kenn xool leen ko moom jëmmam ba pare te képp ku ko am dootoo am soxla buy fanaan di nga am sutura te di nga am sakk rawatina nag ci wàllu wér yaram it daf dox ndax buñ la koy jox fay ànd ak secret bi nga xamanteni ni naa ko leeral ndax day dox ci walu wir geram kep ku wéradi tak ko rek moy ci katun yalla yalla dina dimbale ci sa febar febar bobu nu mu munti tollu ci tak gi rek waye dana am lu mu andal pour sa walu wir geram spécialement àddina bi ñu toll ni nak ñepp soxla ñaan te ñëpp soxla galat lolu mom nañ ko wax rek te waaw suuf bu sutantee rek dañ ko jall diw diw bo gis for am lu muy diwo kon nit ku nek war nga mëna am ay ñaan yoy def sa euh nan ngay mëna def nak ba jot ndax bari na ñu nek Europe gi te soxla ko Amérique ndax lii moom fépp lay dem ci àddina ku nekk dakaar nekk Matam nekk Fouta wala nekk Kolda wala fu ti doon it danañ xefe ba noo si jotee ndax am nañ ay livreur am nañ ay cak-cak am nañ ay correspondant yi xamante ni ñoom ñoo ñu jëlal suñuy colis di ko yóbbu dans les régions képp ku ma soxla bëgg bëgg sama jëmm am na itam ticket de consultation soo bëggee consulter pour xool sa yaram wala nga bëgg def consultation à distance pour def li si xaar mën naa ne wala nga ñëwal sa bopp dagg sa ticket gi gisal ma sa bopp bu fekke da ngay jënd sa jaaro nga jënd sa jaaro bu dee da nga bëgg ay ñaan wala nga bëgg yeneen wala loo ci yokk wala loo ci dolit loolu yëpp ay sàmm lañu te duñu seexlu jur seexluwuñu kenn te képp ku ñëw danañ la dalal danañ la respecter te respecter la confidentialité des autres képp ku ñëw daañ la may njekk ak teraanga ak sutura ci li ngay wax dina yem ci suñu diggante allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim jërë ngeen jëf merci beaucoup on vous remercie vraiment euh, de ce que vous faites et de ce que vous dites Vraiment, c'est vrai qu'il est rare que les, que les de nos jours puissent faire ce genre de choses. Je vous remercie énormément. Maintenant, en ce qui concerne la bague, en fait, je voulais faire cette bague-là parce que le, délai était déjà court. Hein. parce que quand le délai est court comme ça, ça nous permet de, gagner énormément. Je ne sais pas comment vous dire encore plus merci. Je ne sais pas comment Marie mari peut vous dire encore merci pour cela. Que Dieu puisse vous remettre au centuple ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire et ce que vous ferez. Que Dieu puisse vous remettre au centuple, que Allah puisse vous remettre au centuple ce que vous faites et que toutes vos affaires puissent encore plus, encore mieux même, encore marcher. Car c'est vrai que quand on fait les choses avec le cœur, Dieu nous le rend toujours au centuple.